ñëw consultant yi nga xamante ne kii di Baye Omar Gueye jot na leen a jël ci noonu itam dinañ àddu ci beneen mbir bokk na ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub xibaar yi ñu nar a itam ci ab bu am foofee ca fi nga xamante ne moom mooy ngooc am xale lu góor bi daal di fàtt moromam daal di ko jamab paaka foofee dinañ ci ñëw ànd ceek suñu ndaw la fa di Mamadou Camara ci yattalu xibaar yi lay doon noonu itam dinañ àddu ci beneen mbir bokk na ci la nga xamante ne moom moo jëm lii di association bu ëmb kuréelu jullit yi nekk fii ci Sénégal di AIS niki tey jii daal dinañ am ab doxu ñaxtu ak métitlu la nga xamante ne moom mooy caricature ak it tuuma yi ñuy teg ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat xëy na benn ponk lay doon gouvernement bu bees bi ak yéetu coppite yi ñu ci fas yéene andi ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33 Alassane Wade moo féete ci xarit. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen gërëm bu baax sànn Wade mi féete ci xarala gi ak yéen itam ñi safo teewlu fii ngir rek daal di fi taataan xibaar yu wërte wër yu amut benn jiixi jaaxa ci Sud FM 98.5. ñun leen ko waxee ni ki sànq njiitu réew mi président de la république jël na décret ya nga xamante ne nag moom mooy addu ci lépp lu jëm ci wàllu pour daaneel gouvernement bi bokk na ci euh, ñeenti kilifa ya nga xamante ne jot nañ ne nag ñoom mën nañ too ñàkk ci gouvernement bokk na ci conseil économique social environnemental ci njiital madame Aminata Touré secretaire général bu présidence di Mohamed Boun Abdallah Dionne ak it euh, Jean Maxime Simon Ndiaye ñoom ñëpp ñu daal di leen wàccee ci li nga xamante ne moom mooy seen jëw ci seen ndomba tànk bokk na ci itam euh, la nga xamante ne moom la ñuy xaarandi ci lépp lu jëm ci wàllub gouvernement bu yees boobee ngir rek ñu daal di ci andi ay coppite ndax ay technocrate rek lay doon wala boog ña nga xamante ne ñoom ñooy way politique yi ak nu mu munti demee ñu teewlu ci kii di Mouhamed Dia jàngat bi nga xamante ne jot na koo def ñu teewlu ko ci micro Baye Omar Gueye. ci ci ñaar yëpp du ñu mën a soppi lu bëri wante li gën a rafet moo indi gouvernement technique ndax jort bu rafet ñu ne ah ñii de présenté waat troisième mandat faw loolu leer ci bopp nit ñi ñi mu àndal moom ba pare comme ça ñi mu jël ñi nga xam te du ñu xëccoo pour nekk boppu APR ëllëg dinañ liggéey ne def gouvernement bu élargi xaw ma kan moo ci nangoo bokk nag mais du ñàkk ñi nga xam te ne dinañ ci nangoo bokk pour cohésion nationale. kon yow dafa mel ni dafa mel ni euh, euh, ñeenti ministre yi nga xamante ne tey euh, dakkal nañ seen liggéey dafa mel ni yow da nga si gis benn yoon bu ñu ko ñuy xaraleel yoon. li ma gis mooy pour dama gis ñu wàccee conseil économique et social HCCT des foofu donc pour ma dafa mel ni dafa am xàll yoon dafa am làqu ci suuf loo xamante ne ñu ngi koy waxtaane loo xamante ne du yomb nga xam ko mais xëy na am na ñu ci xam dara fekk du ñëpp parce que euh, làmb politique bi nu mel ni dafa xaw a jaxasoo trop dafa jaxasoo trop trop trop ñii dañ leen gracier amnistie wu ñu leen ñii dañu leen génnee dëkk bi duggal duggaguñu donc ñooñu ñëpp doo xam lu muy préparer ëllëg te président africain boo gis muy jógee ci nguur dafay bëgg a am wóor comme ça bu demee lépp loo xam te ne def nañ ko naka su dul noonu kii toog du mun a topp ay mboqam ak i xaritam donc il faut mu defar ginnaawam ba pare balaa moo soog mun a dem mooy waral ñuy gis président yi ñuy bëgg a dee ci nguur. comme li xew Guinée. dañuy bëgg a dee ci nguur parce que bëgguñu génn tànk amuñu garantie bu ñu demee kenn du leen topp ñoom ak seen i njaboot ak seen xarit. loolee di jàngat Mohamed ja xam-xamam màcc ci wàllu wàllub koom moom moo doon àddu noonu ci micro El Hadj Baye Omar Gueye keneen ko ci jota addu bokk na ci euh, kii di Momar jong mi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu wàllub euh, doxalinu politique ci miim réew moom itam am na jàngat la nga xamante ne jot na koo def rawatina ci li ñuy xaar ci gouvernement bu yes bi ñu fa yéene taxawal fii la koy fan ñu teewlu ko ci micro Baye Omar gi man li ma jàpp mooy gouvernement euh, il faut mu am ay politique waaye mu am aussi ay ni dañ leen di tànn ngir seen xam-xam pour gouvernement bi am efficacité parce que nag dafa am lu ni këtt ñu jonn am ay jafe-jafe yu nekk ci réew mi yoo xam ni dafa laaj xam-xam ak gisin bu leer pour ñu saafara ko waaye dimension politique bi mënta ñàkk parce que Baye Omar li tax dimension politique bi mënta ñàkk mooy président la république bi ñu ko falaatee dafa indi xar kanam bu bees premier mandat bi yëpp gis nañ ni que dafa nekkoon ci defante ku jëkki ñu ngi fàttaliku bi mu fi demee Kaffrine li dinaa fexe ba opposition du tekki dara Sénégal dinaa leen naxasal loolu yëpp nag li ko ci dugaloon mooy bëgg rek second mandat waaye gis nañ bi mu amee second mandat mu tàllal loxo ku jëkki waxtaan dal di lalu ku jëkki ko ko yàggaloon bañal itam nangul ko ko cette fois-ci dañu toog di lalu di waxtaan gis nañ ni que digganteem ak Abdoulaye Wade demoon na ba nga xam ni wax dëgg yàlla yàqu woon na lool lool lool waaye ci ndigalu xalif général des mourides gis nañ ñu tase Masaalikul Jinaan ba waxtaan ba ñu am lu ñu defar dab dabal ko ci diggante boobu gis nañ ñi itam ku ci mel ni Khalifa Sall président de la république may na ko grâce présidentielle loolu yëpp indi ak dal ci langu politique bi waxtaan dal di juddu ci dialogue politique mbas ñi nag ñëw dal ci kaw Sénégal président de la république sukkandiku ci ambiance bu bees boobu am tàllal jëpp loxo ñooñu itam fekk si ko léegi nag ñëpp xam nañ ni lii nga xam ni moom la président jógte mooy fexe won sénégalais yi ni que man mii kat du ma Macky Sall ma ngeen gisoon ci premier mandat buy jamono mhm. deuxième mandat moom ma taxaw na ñor waaye tey damay taxaw comme ku dajale sénégalais yëpp pour ñu ànd jublu ci soxlay réew mi. Momar Dione loolu nag defe naa. Uh-huh. moo waral ma yaakaar ni gouvernement dina am dimension politique. oui dimension politique ñu war a am dimension technocrate. oui maanaam ñoo xam ni président da leen tànn ngir seen xarañteef pour ay dossiers yoo xam ni il faut que ñu gérer ko parce que nag réew mi bu ñu waxante dëgg rek xam ni jafe-jafe yi bëri na. sénégalais yi ñoom ci seen wàllu bopp itam daal di ci yëkk ay kàddu rawatina ña nga xamante ne jot nañoo taseeg ñoom fii ci xàll yi ci biiru ndakaaru ñoom nag jàpp nañ ne lii la ñëw na ci waxtoom ndaxte nag gouvernement bi nga xamante ne moom moo fi ko la ca ëpp xamuñu woon la ñu war a def Amadou Moustapha Dieng. xibaar bi la ay la yéwén bettul lu bëri sénégalais ndax ñoom ñëpp ñu ngi doon xaar remaniement bi nga xam ne am na tey. doon na lu ñëw sénégalais yëpp doon xaar ah. remaniement bi c'est à féliciter à encourager ci askan wi ñoom jàppoon nañ ne gouvernement bi moom war nañ ko soppi ndax kat askan wi kontaanul woon ci ñoom ñuy xam le ne war nañu nag xool bu baax ñan la tab tabb andi équipe boo xam ne mooy mën a saafara jafe-jafe askan wi. boo amee ay ministre war a liggéey te liggéey yaakaar naa li ngay def nga changé te boo leen di changé tamit bu fi indi ñeneen ñoo xamante ne dañuy mel ni ñoom bu ko def tamit yëfu parti kon nañ xoolaat bu baax ñi tànn liggéenti jafe-jafe yooyu lee jàpp na ne bi ñu ci war a tàmbali moo di secteur bu mu nekk moom mi lee di agriculture ndax kat gis na ne ministre bi fa nekk moom defu fa dara que ce soit agriculture nga xamante ne c'est secteur prioritaire boo xoolee dara doxu fa parce que man mi di wax di di liggéey ingénieur boo xoolee suñ ministre bi que ce soit muy ne moom la waroon liggéey liggéey ko ba léegi dara agronome te nawet yee yàbbi ci ay yoo xam ne doxul moo xam napp gi la moo xam surtout liggéeyu ndaw ñi. ji boo jëlee lu mbaalu napp bi. gars yi ngi àllu fii saa ne. ñii di taali pono ñii di gërëm. ñi tey jii ñu ngi daanu ci ñu ngi dee ci géej gi comme ay comme ay jën yàlla ma yàlla jéggal te loolu dafa ñaaw am na ñoo xamante ne am nañ seen i diplôme jàng ba jeexal doon ay doctorant ñeen ñi ay maîtrisard mënuñu fex ba am liggéey te tey ji ndaw yi tant que outillé wuñ leen jox loolu liggéey dañuy dem rek di dee moom li mu gis ne war nañ ko dellusiwaat ci biir gouvernement bi bi nga xam ne Macky Sall moo ko fi dindi woon ginnaaw bi ñu ko falaatee ci weeru mai 2019. premier ministre foo war a ñëwaat parce que parce que premier ministre rôle bu mu doon joué moo manqué président boo xam ne da koy épaulé si lu muy def mu andi ñu benn premier ministre koo xam ne day toog wetam bu fi nekkul sax muy xool ñeneen ni lu muy def. ci noonu mu gis ne it am na ay ministres yoo xam ne ay la yéwén jot nañu liggéey. ministre de l'urbanisme ñëpp gis nañ lu muy nekk di liggéey si. remaniement bi ñu doon laam-laamee remaniement boobule jëmal nañ ko waaye ñëw na ak ay làkk yu bëri. bi ndaxam dañuy yaatal gouvernement bi dugal ci kujje gi ndaxam dina am ñoo xam ne dañuy delawaat seen portefeuille wala ñu am feneen fu ñu jugee dugg ci gouvernement bi waaye it ndaxam dañuy indiwaat post premier ministre li ci kanam raw li gët. di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi fii ci Sud FM ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci partenariat bu dox diggante Union européenne ak senegal ñoo nga daal di door la nga xamante ne moom mooy projet bi xëy de saytu lépp lu jëm ci wàllup euh, tefes yi fii ci Sénégal projet boobee nag dafa jóg ngir rek daal di fexe dugal loxam bu baax a baax ci coppite gu ñu nemmeeku ci jaww ji rawatina la nga xamante ne moom la ñu daal di nemmeeku ci euh, juróom-ñaari région yooyu gis nañ ne nag la ca ëpp ci tefes yooyu dañuy gis. gis ne nag li leen di ndox mi day gën di avancé di leen di jël loolee nag moom moo tax ñu daal di am ab projet boobee nekki tey jii daal di sax daal di yëglu ngir rek jafe-jafe ya nga xamante ne moom bàyyi ko foofee rawatina ci suufu ñu daal di ci bàyyi xel bu baax a baax Josette Kaly mbir yi daanaka soppeekuwul dëkkuwaay yaa ngi woy di gën a jege géej gi ràcc dolli nit ñi di jëfandikoo li waroon ndox diggam ak dëkkuwaay yi boobee situation taxoon ba ñu yëkkati ab projet sectoriel ci diggante 2012 ba jàpp 2015 waaye benn résultat amuñu ko ci juróom-ñaari région yi nga xamante ni fan lañ ko amaloon Cheikh Ndiaye Sylla directeur de cabinet bu ministère de l'environnement. loo xam ni bu ñu ko sàmmul lu muy jur du baax géej gi bi nu muy ñëwee ci gox yi ak goxaan yi. tey jii goxu Mbaaj boo demee Saint-Louis Langue de Barbarie boo ñëwee ndakaar Corniche bi boo demee Petite Côte euh, Saly Casamance Île de Jogué et cetera zone boobu yëpp dafa fragile te zone boobu yëpp boo leen xoolee tey ji napp fa la nekk yenn tourisme yi fa la nekk géej gi bi nga protégé wul duggee suuf si day yàq mbay mi day yàq tamit élevage beeg yëpp daal yooyu la moo tax projet bi donc jóg ci région bu nekk lan lañ fa war a mën na maintenant indi en investissement ak un suivi pour que loolu indi ay koom. ngir projet bi mën a taxaw du ñu bàyyi xalaatu kenn ba mën a aar li di tefes yi. ay collectivité territoriale wala ay regroupement wala en tout cas ay nit ñoo xam ne seen développement région soxal na leen mën nañu développer benn projet ñëw teg ko léegi mu nekk euh, si appel projet boobu ba maintenant ñi koy def tamit mu nekk si njariñu askan wi nit ñi informé wu lan la ñuy def ak littoral bi lan mooy sensibilité pour que ñëpp aar ñetti milliards ci suñuy koppar ñoo bëgg dugal seen loxo ci politique bu PSE vert bi Amaury Hott bu délégation bu Union européenne. Le projet a deux composantes. projet bi daanaka ñaari pàcc la ba ci njëkk mooy ni ñuy gunge institution yi weneen wàll bi daal di ñeel activité ñi nga xamante ni dinañ ko daal di jàppale ngir mën a xeex lii di coppiteg jaww ji waaye itam xool na la ñuy euh, gën a taxawee ci plan yi ñu jot a tëral ngir aar li nga xamante ni moo di zone côtière yi. projet de gestion intégrée jëm ci tefes yi dinañ ko amal ci ñeent ci ay at fi ci réew mi. ngeen fi wéy di tataan xibaar yi àddu ci beneen mbir bokk na ci mbënd bi ak foofee ca Kaolack gis nañ ne itam bëri na ay borom kër ya nga xamante ne dañoo bàyyi ko seen kër te leen waralu ko lu dul mbënd bi mairie bu Kaolack nag daal dina jënd ay mat la ay dund ak it ay produits ya nga xamante ne dinañ ci mën di raxasoo ngir rekk daal Euh, moytandiku bu baax a baax yenn wopp si loole nag ci ndimbalu fondation service le euh, servir le Sénégal lañ ko daal di amal jàppale defal euh, jàppale la daal di def lii di maire bu Kaolack li ni mel nag niki tey ji lañ ko doon daloo foofee ca Kaolack kii di madame Ami Mbodj moom la ñu toftal ci commission sociale bu mairie bu Kaolack ñu teewlu ko ci micro Mamadou Camara. gàmmo gi ku nekk boo sañoon da nga koy feetee dans l'ambiance mais aussi da nga koy feetee ak xel mu dal te lii nga gis nii xel mu dal la ndax boo nekkee si mbënd ñàkk ay matelas nekk si mbënd mu tere laa génn pour nga uuti leen ñu mbënd yoo xam ne duñ am sax waañ wuñ toggee am na ñoo xam ne seen i matelas xotteeku na am na ñoo xam ne seen i néeg daanu na ñoo xam ne ma maire madame sociale lañ koy ooyee mu jël population Kaolack bi yemal commission sociale bi ñu ànd ak des sapeurs pompiers ànd ak ay nit ñu dem si dans la commune xool quartier yi nga xam ne vraiment mën ma dem na fa ñu tànn ñi nga xam ne ñoo ko yelloo pour ñu am ndimbal bi ñu jox leen ko mu nekk taw euh, fi fi ñu toll nii ñu ngi leen di jox euh, ceeb jox leen matla jox leen ndox jox leen euh, madaar ak euh, yeneen daara yoo xam ne ñu ngi ci biir yoo xam ne dinañ ko soxla ndax xam nga ku wax mbënd rek war nga mën a wax ne nit ki mën na xëñ na dem na ba këram taana taa boo xam ne amul fu muy jaar pour dem jëndi ay denrée wala néegam daanoo na mu jógee fa pour dem feneen yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne nii liñ leen jox nii daara yu am solo la ñi fi jël ëpp nañ plus de cent personnes xam nga ak euh, gàmm gi dañ la doon xaal sax ba gàmm gi jeex ñu joxe ko waaye madame le maire def ne kuy kuy wallu doom aadama da ngay fa mu gën a jekkee mu def ko dal na xel ndax di nga am ñaari mat laa yoo xam ne buñ si mën a tëdd wala sa alaaji tëdd si wala say doom tëdd ci xam nañ ne madame le maire Mari Koy sàll am na fu mu ko teg fu mu ko teg nag maire moo ko liggéeyal boppam indi lii tegal ko ko jox ko ko jiital ko pour mu jox la population de Kaolack ci wàllu wërgu yaram la ñuy des rawatina amical bi ëmb jigéen yu nekk ca soleil niki tey ji la ñu door lu toll ci ñaari fan ya nga xamante ne dañuy dépister ci wàllu cancer euh, col de l'utérus ak euh, du sein loolee nag dañ ko def rek ànd ceeg lëkkaloo waa liska ngir daal di xool ñoom itam ananes la ñuy def ba daal di sumb seen pour loxo ci xeex gu ñuy xeex lépp lu jëm ci wàllu wàllub euh, feebar boobee di dal jigéen ñi ak it lépp lu jëm ci wàllu wàllub responsabilité sociétale d'entreprise jigéen ñooñee nag bëri na ñooñ ña nga xamante ne ñëwoon nañ teewe loole Marie Rosalie Ndiaye bëri woon nañu lool jigéen yi ñëwoon wuyu si ngir ñu dépister leen ci cancer wenn ak cancer bi dal butitu njurukaay yi mu nekkoon ab woote bu amical bi ëmb jigéen yi nekk ci quotidien lu soleil lu am solo am ñeent fukki at ak ñett. Euh, dépistage cancer bi laa ñëw def naa ko ba pare def naa ko ba pare léegi damay ñibbi mais lu am solo la parce que euh, saa yuñ ko defee rek man damay ñëw léegi benn bàjjenu gox bi ñu dëkk moom moo ma ko wax ne cancer kii bi dafa am moo tax ma ñëw. mais lu am solo la parce que mosoon naa ko def ba ñu am lu ñu gis ci man ba ma suivre opération léegi ba ñu waxaatee cancer di kii bi sein bi ma ne xaaral ma ñëwaat mais tout est normal. bile activité amicale bi ëmb jigéen yi nekk ci soleil dañu ko tëgg ngir dugal seen loxo ci xeex bi ñuy xeex kanseeru jigéen yi nga xam ne mu ngi gën di law fii ci senegal ka jiite boobee amicale ab sa ndong. ñëpp xam nañ ni tey jii ñaari feebar yooyu ñoo ngi def euh, dégâts bu métti si jigéen ñi fii si Sénégal ñu ni woon pourquoi pas cette année ci ñun tamit ñu dugal si suñu loxo ànd ak jigéen ñi jàppale leen pour ñu ñëw dépister wu fii nii au soleil. ñaari bésu dépistage yi nga xam ne dañu ko jagleel jigéen ñi nekk ca commune bu Hann Bel-Air maire bu gox ba nekk it administrateur ca soleil Babacar Mbengue daf koy rafetlu gis ne lu ñu mën a wéyal la. bi may dugg si maa ngi dem di nuyu femme. yi nga xam ne li ci ëpp xam naa leen parce que ñoo dëkk fii ci commune Hann Bel-Air ñuy ñëw di ci profito donc loolu ñaari casquette benn bi en tant que maire dama koy rafetlu parce que société privée boo implanté dans la commune moo ubbil bunte bi mais beneen bi aussi en tant que administrateur bi mu bokk dañu bëgg a encourager ce genre d'initiative parce que dafa bokk ci li nga xam ne maanaam dafay gën a taaral en tout cas ren gi Ligue sénégalaise contre le cancer nee na dépisté na lu ëpp juróom-benn junni jigéen ci canceru ween ak canceru butitu njurub lu ni mel di wone rek bu ñu sukkandikoo ci docteur Fatma Gonon jiite liska ne jigéen ñi ñu ngi gën di bàyyi xel ci solo ci am ci fàggandiku ci cancer yi nga xam ne mën na leen a dal. Marie Rosalie Ndiaye ñu àdd ci beneen mbir beneen coow bokk na ci kàddu ya nga xamante ne njiital France daal na ko yëkkati rawatina li ñuy doyadal ak it di xeeb di jël lu ñaaw di ko teg ci dërëb yonente jullit yi noonu ñoom ci seen wàllu bopp nag niki tey ji la ñoo daal di janoog waaye taskatu xibaar yi di association islamique pour servir le Sénégal di AIS jàpp ne nag euh, kile di président bu France dafa war a jégalu ñëpp di ko dégg rawatina jullit yi ki àddu fa ñoom di sëriñ maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba ñu teewlu ko ci micro Aji Fatou ay AIS ñi ngi ne ci euh, loolu nga xam mooy discours bi nga xam ne Macron yëkkati ne ko ci wax na day continuer caricature yooyu loolu ci kaw loolu ñu ngi woo euh, peuple France ñu ngi woo euh, seen député yi ñu ngi woo seen sénat yi ñu ngi woo sax borom xel yi nga xam ne ñoo fa nekk nan lañ mën a fexe ba deltu ginnaaw ci caricature yi nga xam ne Macron wax na ne moom mi seen jiit ne da koy continuer. pour def ko France gi nga xam ne yàgg nañ koo xam ci muy woote démocratie France gi nga xam yàgg nañ ko ci muy woote euh, li ñu mënti droit de l'homme te ñu daan wax ne liberté wala ak lu mu mënti doon euh, sa liberté mi ngi yem fii sa liberté moroom commencé foofu la sa liberté yem yaakaar naa ñu ñëpp jàng nañ ko kon ci kaw lu mel noonu ay AIS mi ngi wax ne tamit euh, lépp loo xam ne nuroo na extrémisme religieux lépp lu nuroog loo xam ne nuroo naag li ñu mënti terrorisme loolu bokkut ci diine lislaam ak képp ku koy mën a woote di wax shadan sada ak foo ko mën a woote loolu bokkut ci diine lislaam loolu yëfi nit ki bopp la bu ko defee foofu nag war nañ fee taxaw ràññale ki nga xam ne daa ëppal ci diine tey woote ashhadu an la Muhammadu rasulullah ba yóbbu ko muy def kooku ñu ngi woo eh, ñi nga xam ne comprendre l'islam ñu jéem a distinguer loolu xam ne l'islam dafa woote diine paix et tolérance woote ci dal woote ci mbëggeel woote ci soppante comme ni nga xam ne noonu la ko suñu réew yi listam yi defee rawat na fii di Sénégal kon doo moo tax AIS mi ngi woo Euh, encore une fois di naqarlu bu baax a baax a baax caricature yi waaye nag di woo président Macron mu excusé wu jéggalu képp koo xam ne am musulman waaye jéggul humanité ñu àddu ci tiis bi am foofee ca Ngooj nekk ca commune bu Gandiaye nekki commune bu Njebel no ne nekki tey jii nag lañu gis ne benn xale lu am lu toll ci fukki at wala ak lu tekk tuut moom moo daal di faat morom ma Euh, ci jaasi la ko daal di gor nag mu ñàkk bakkanam ki nga xamante ne moom moo jëf jëye jooje euh, daal di nañ ko yóbbu ci gendarmerie bu nekk ca Gandiaye ki nga xamante ne jot na ca ñàkk bu bakkanam yóbbu nañ ko ci hôpital euh, El Hadj Ibrahima ñas bu nekk ca Kaolack loole nag moo ngi ñëw ci àll bi nekk ca commune bu Njebel ci arrondissement bu Ngoc Mamadou kamara alarba bi tiis moom moo am ca commune Njëbel ci arrondissement Ngocc ndax ñaari sàmm yoo xam ne yi ku ci nekk yaa ngi am fukki at ak ñaar daanaka ay morom lañ ñoom nag dañoo nekkoon ci àll bi ginnaaw ba ñu jàppante jàppante yu méttee mu mujj nag xeexoo kenn ki jël jaasi daal gor moroom ga mu ñàkk bakkanam ca saasa mi ngi xewee ci commune Njëbel ci arrondissement Ngocc kenn ki bi mu ñàkkee bakkanam ca saasa yóbbu nañ ko ci morgue hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack médecin légiste bi di def liggéeyam laataa ñu koy jébbal ay mbokkam pour rob ko ki def ñaawteef boobu muy xale bu toll ci fukki at ak ñaar jamono ji mi ngi ci gendarmerie bu Gandiaye ñu teg ko loxo loolu tax nañu dëkkee Gandiaye Ngoj ak Njebel nekk ci tiis bu métti brigade gendarmerie bu Gandiaye daal di ubbi ab l'enquête boo xam ne bi mi ngi koy wéyal Kaolack Mamadou Camara Sud FM tàggat yaram benn ponk la bokk na ci renouvellement instance yu stade de Mbour yi ñetti candidat lañ fa daal di nemmeeku ñaari nag daal di nañ boole seen doole ngir rek doon ci benn list bokk na ci kii di Abdoulaye Gueye président intérimaire ak kii di El Hadj ñu gën koo xam ci As Wade seen ànd nag niki tey ji dafa fekk rek ñu gën a bëgg a dooleel seen euh, liggéey ci club boobule niki tey ji lañ ko daal di xamle. Euh, ci teewaayu Moustapha Sall ñu teewlu ko moom El Hadj Malick Wade ñu gën koo xam ci As Wade ci micro Moustapha Sall. au-delà de man ak moom am na ñeneen ñoo xamee ne euh, am na au moins ay bu dee tur rek ñaar fukki nit ñeneen ñoo xamee ne au moins dinañ ci ñëw jàpp am ay doomu mbuur yoo xamee ne ay yàlla may na leen place. ñu ooñu nañu bu ngeen àndee yéen ñaar man dinaa jàpp ci Mbour keneen ooma ne ma bu ngeen àndee yéen ñaar man dinaa jàpp ci stade de Mbour te incha allah di ngeen ko gis ñoo xamee ne fii lañ dëkk dañ daan romb bâbord tribord di ngeen leen gis ñu ñëw jàpp ci stade de Mbour ñoo ñëpp wax ñu bi ñu loolu lépp nit ñi wax ñu ko ñu xam ne àddina amul dara loo xamee ne kii ndax kii yaayam suma yaay la suma yaay yaayam buñ demee foo xamee. kon tey lañ gën a bu bëggee. parce que li may wax nag ànd am booloo lëngoo moom ñaar ñu bëggante rek boo bëggul lëngoo man mën naa laa teg sama loxo mais boo boo defee nii da nga koy waddal la porte est ouverte waxuma la moom même doomi Mbour yoo xamee ne pour une raison x ou y dañ moytu woon stade de Mbour wala dañ ko doy ñëpp tàllal nañ leen loxo. am date butoir mooy fi nga xamee ne mooy miir bi ñu ngi ciy sas ñu ngi cay àgg nag moo tax ñuy ñaan préfet mu dimbali ñu bu dente ne ant dara antuwul fi ñu taxaw daal bu ñu fi taxawee. nañu yóbbu ca làng ga ñu sëgg bëri ku daan ñu xam ne yow la yàlla may ndam. ndax li leen di liggéey. ndax liggéey bi dafa bëri ba pare nag ñun dañu xam tamit lu tax ñu ñu loolu mooy wax naa la léegi ne la am na ñaar fukk ak benn ci ñaar fukk ak ci ñaar fukk ak euh, juróom-ñett yi fi nekk ak ñeent ñoo xamee ne ñoom dañ ne euh, euh, faruñu fen gon fi mu ne juróom fukk ak juróom-ñaar yi des bu ñu ko joxoon fi beneen camp bi fan ñaar fukk la am ñun am ñaar fukk ak benn gon ñoo leen di ëppale ba léegi. waaye kon li may wax ne mooy li ci gën li nga xamee ne mooy mooy mooy li ñu ciy kii mooy ne ñun du xëccu pour wax ne dañ am doole parce que du ñu séparatisme mi arrangé wuñu parce que ñun mbuur dañ bëgg dajale doomi mbuur yëpp donc looloo tax ñu ne AG bi nañ ko jéem a fexe noo xamee ne dinañ ko def lu gën a gaaw bu ko defee ñu mën a ñu mën a yeewi waa mbuur nekk ci leneen le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des aha mbiru machine la tàggat yaram rek ñu àddu ci lii la di ligue des champions. ma ne dama ne bu bees bi genre pare-feu la rek. du dara du dara du dara gëmuma ko de. et puis waa ji dafa mënut dem dafa mënut dem. yàgg naa wax ne sàccum nañ la mën a mais foo ko tegee moo jafe ni élection yi déroulé ak ni jaar ñàkk jaaro yoon il faut akun ñu topp ko ba du mën a dem benn ngoog aarfo bi nag mooy lan ah, mbëkk mi am na fi bu ñaaw am na fi entre gaal googu ak ak ak bateau bi loolu c'est gênant pour pour moom c'est gênant ñu fa faatu seen seen seeni seen i waajur gi suñu leen ñu ngi koy laaj il faut mu créer événement li si def mooy Macron waxam ju rëy jii moom démb dafa demoon ne il est Charlie il est Charlie dem foofu di manifester te ñu toog ca prophète tey wax ji am na c'est gênant encore il faut mu créer événement loolu rek la de. kon nga gis li des mooy am na ñoo xam ne c'est des yi ngeen doon xaar yii rek lañ xaar ëllëg complot ak baara yoo ko mu def si réew bu amee du ma bett maanaam langue Omar Sarr googu nga dégg ñu nekk ministre. mbaa Karim Wade dafa nekk premier ministre man dama bett c'est des non événement li fi am mooy rango ñu baaroo mooy continuer suñu cëree bu wóor dara du change dañuy yàq alal réew mi rek di dem. kañ la réew mi di waaw ah. réew mi kañ lay changé kon. ah bu fi nit ku baax jee bu fi nit ku baax ñu ak équipe bu équipe bu set wecc. kan moo ko baax góor góor bu set wecc jiite réew mi am ngor am dignité. keroog lay baax mais amaguñu ko de billaay amaguñu ko. jërëjëf. jërëjëf Mbaye Kane ci Ndakaaru ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. réer jàmm tukulóor. waaw Sow. maa ngi laa ziar. delloo ziar. ku fa ne. Alassane Wade. waaw maa koy ziar. Mhm. tout d'abord xam nga euh, sénégalais yi il faut ñu seetaat leen. Mhm. kenn baaxul kenn baaxul loolu it ku koy wax il faut ñu seetaat la man nag kenn ku ci ne xam na ma <laughs> du raayal kenn ndax sama bàmmeel laay jiital d'abord balaa may wax waxuma pour gouvernement bu amee ñi ci war a dem ak ñi ci warul dem sama yoon nekku ci li ci ne mbokk mi wax na ko léegi am na lu mu wax lu dëggu la mooy poudre la bu muy fi wis ci ñin ñi ngir ñu fàtte tey sunu xale yi nga xamante ne ñu ngi dee ca waax ya jën ya di leen reere muy lu doy waar loo xam dañ ko doon ñi ci régime yi fi woon ñoom ñu ñëw ñu piir que régime yooyu koo xamante ne bi ngay wut da ne xale yi dinaa leen jox liggéey nga nax leen ba xale yi tey ñu ngi dee ci wax yi amoo kersa amoo rus amoo non man lii def ma jaaxal ñoom bu ñu seggee xalaat seen kaddu ëll dëmb lan la ñuy wax gouvernement ma am ak ñàkk am lu mu mënta am ñun Sénégal moo ñu moom moo ñu soxal dañu wax ne nañu xool suñ doom yi di dee ci wax yi dañu wax jafe-jafe yi ci réew mi tey nañu seet niñ ko jubbantee te ñoom seeni kàddu kenn du kàddu kilifa ci ñun parce que moom fan yi rek ci journaux yi waxoon na ne du def ma déggoo ko woon foofu ngeen ko liiroon laajal ndey Marème moomu waa léegi doo def remaniement parce que bëggoo tàggoo ak say xarit du loolu la waxoon léegi mu ngi waaj remaniement lii mooy lan kaddu kilifa moo tax lii la ko Idrissa waxoon kaddoom laalo la foo ci tey rek rot na yàlla yërëm ñu wasalaamala ma ni tabal huda jërëjëf Jibi Sow ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum aleykum salaam sëñ Birama aha kooku alaaji xaas Mbàkke bool alaaji xaas waaw sëñ Birama waaw alaaji lii président def na man ànd naa mais li tax ma gën cee àdd nag na bàyyi sama commune bi ak département bu Mbacké. Hmm. na fexe daal moom ba lépp lu muy nef nañ ci boole parce que ñun mille neuf cent soixante ba jooni yàlla tey. Hmm. mosu ñoo ñàkk ministre. ci nguuru président Macky Sall dong la ñàkk ministre. dañuy dimbali laa li muy tawax boole man na kum jël ba mu des Idriss Seck rek d' kum mën na jël ba mu des Idriss Seck d' accord naa neex na jël jógal ci gouvernement bi. Ah. Idriss dong la waaye keneen kum jël rek d' accord naa beneen bi ci des euh, mën na li ñuy wax nii. ay maa mbir mi astafurlah calendrier yi ñu yor nii. xale yi mbëkk li koy faj mooy bu buñ jàppatee buñ bàyyi buñ jàpp ñeer gaal yi xale yi nga xam ne dañoo dugg ci gaal yi nañ leen jàpp yóbbu leen tëj leen six mois wala un an bàcc bàccal leen. parce que ñoo ko tey parce que déglu naa tey ci benn rajo rek xale daal ne ba tey tey bu buñ gisaatoon gaal dañuy dem tey am na xale bu am vingt deux ans ay trente ans ay yooyu. loolu mooy seen digg ndaw lañ toll mais bu ma demul Espagne. damay dee wala ma dem stage du ma liggéey lu jom du ngor ku leen ci encouragé sa doom sa sa soxna demu ci yara di ko doo nga tax ni di ko def dëgg bu jotee dañ koy wax nan toog nekk ci réew mi jàng métier de loolu mooy dëgg waaye damay def stage dem baa dee moom ku koy defit njariñ loo fekk ku demit da ngay mooy ñuy jaay drogue ñuy sàcc ak ñuy def lu bon dong nan bàyyi seen caaxaan dox xale yi dëgg waaw kii nag bu nan wax mënul dara moom ñu man dara moo leen fi jëli président Macky Sall moom ñi mën ñëpp moo leen fi jëli kon ku mënul dara kon ku mën dara nu muy def dañ bàyyi seen jaaxante nangu dogal suñu borom na ci bàyyi Mbàkke xel rek wasalaam. jërëjëf El Hadj Xaas Mbaye ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. allo salaamaaleykum. allo. waaw. allo. El Hadj Lamine. na ngeen def. sant alhamdulilah. ñu ne ziar. delloo ziar. yow la bàyyi a ngi jàmm. waaw yow lañu ñu teewlu de. El Hadj Lamine Diagne Saint-Louis. waaw damay leen di ziar. E di yëg naa remaniement boobu moo tax may intervenir et e, ci ci gàmmu gi ñu ngi balu ñëpp di bal ñëpp et di e, di di di ñaan remaniement bi yàlla na amal njariñ Sénégal bu fekkee ni remaniement bi dana am daal ñu ngi demandé gouvernement bi mu fexe ba def na Mali ak yeneen état yëpp mu yem ci vingt cinq membre gouvernement bi ndax bu fekkee ni ñu ngi ngay jàmbat institution yu yoo xam ni normalement Sénégal pouvoir exécutif ak euh, assemblée nationale ak Sénat rek doyoon na fi waaye yeneen ñetti institutions yi ci dooleeku ëpp na ci ëpp boo xam ni euh, war na tax gouvernement bi ñu fexe ba yem ci vingt cinq bu ñu ci yemee aussi ñun daal Saint-Louis ñun daal nañu am sax ay sept ministres waaye sept ministres yi xaw xawuñu amal njëriñ ndax emploi mooy problème ci emploi lu ñu soxla pour pour réew mi moom la. Euh, moo tax immigration bii doy waar alors donc euh, euh, Mansour Mansour Faye mooy fi ministre waaye fexe na ba ba sponsorisé lu toll ci sept kii directeurs généraux ñoo xam ne mën naa ci wax ni Bekkaay Jóob kii ñi nga xam ne ñoo ci gën a nga leen di téléphoné di leen am muy Bekkaay Jóob bu Ross Béthio ak Ibrahima Diaw bu bu bu Paal ak Faas ñeneen ñi ci des Euh, am na SONES ki euh, ISRA ki yu bare euh, CSS waaye ñooñu kenn mënul fexe ba am am leen employé yi SONES moom waroon na avec canal canalu Dakar bi waroon na mën jël ñu bare waaye ku wax ne mënula arrivé sax pour am leen au téléphone doy na waar dimbaliwunu gouvernement bi donc gouvernement bi na fexe ba jox instruction Alaaji Lamine Diagne ca Ndar jërëjëf ñu daal di jël keneen. allo asalaamaaleykum. ma man la Anna Mendy. Anna waaw Anna waaw. maa ngi lay nuyu dégg ñoo ngi lay fay waa Anna. waaw ak waa rajo bi ma ne. Hmm. Macky moom la réew mi doyloo jiital ko. lu ko doy doy ñu doy nañu. li ci kanam rawul ay bët bu équipe bi mënee liggéey dina leer ku doy président doy nga ñu bu ñu toogee liggéey liggéey liggéey bu sell ñu tàccu bu seen liggéey sellul ñu wax ñoom ndax soxla set rek il faut ñuy jàmm ko taxaw ci na mu gëne bi ci def magal gi euh, gàmmu gi maa ngi ñu dem gàmmu gi ci jàmm tout dañu góorgóorlu bañ a jëkkante ànd ak seen sago hmm. dimbali askan bi mën a dem ci jàmm opposition d'accord mais opposition républicain euh, euh, opposition responsable ak républicain hmm. moom la ñu soxla ci réew soxlawuñu opposition te lu ñu wax nga dégager en touche te doo indi benn idée bu mën a yor réew day am ak xam-xam ndax plan caste ak plan xuloo la ñu am amuñu plan de travail lu mel noonu lañ doon wax 2016 ba ñàkk référendum yi élection bu ñu jëm sénégalais yi weddi leen Sénégal dëgg ak xam-xam moo fiy dox waaye leneen bu fi dox mbas mi ñu topp ndigal yi ministre de la santé ak gars ak équipe am wax ak maa ngi gërëm personnel de santé bi yëpp ak waa Sud FM kenn du yéen kontaanati nañu ci yéen ñu ngi doon déglu information yi ngeen di joxe dara rawuñu ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall fi nga bëgg a eggali réew mi si lu baax yal na la ko yàlla eggali lu kawe sa njort maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. jërëjëf Anna Mendy ca Parcelles Assainies ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi. Birame na nga def. sant bu baax alhamdulilah. Moussa Ciss bu Morola. Moussa Ciss Morola waaw. wax lu nuyoo waa Morola yëpp. ñoo ngi leen di fay. góor ak jigéen mag ndaw di yàlla ñi dem gàmm yal nañu yàlla ñi dem gàmm yal nañu àgg jàmm hmm. lu ñu fa ñaan yàlla nangu waaw ma ne hmm. Macky Sall est-ce que moo wax ñii de ñii de ñii dee ci géej gi dem leen dee hmm. ñii dee ci géej ay xale lañu am ndey ab baay lu ci gën a néew at mi ñaar fukk ak nangam kenn waxu leen dem leen géej ngeen dee yi ku ne xam ne ku bëgg a dem tukki jaar le voie am sa passeport am sa xaalis jël avion wala nga jël wala nga jël oto jaar voie normale daal hmm. waaye bëgg am tax nga jaar ci géej dee fa naan Macky Sall nangam nangam dañu bàyyi façon wax yooyu waaye kilifa du wax façon wax du wax façon waxin yo yooyu baaxul tey baaxul ëllëg doo jiñ sa moroom ngay moo rey nit wala moo def loolu baaxul wala wala ñoo jiñante nañu wax xale yi daal bàyyi leen yoon boobu baaxul loolu moo gën a rafet ak président bu mën di doon nekk kuy jaar ci géej gi sa bakkan mi ngi ci xotu gett nañu bàyyi jiñante jiñante baaxul doomu gor lu jiñante lii dal ni neexul kenn nga am sa doom war a dem liggéey jaar ci géej gi bato bi soox mu dee nga ne Macky Sall moo def moo def naa Macky Sall est-ce mën na dig xale ci Sénégal yépp liggéey jox leen loolu kan moo ko mën ci àdduna amul tey amul benn président bu ko mën ci àdduna daanaka gouvernement bi loolu beneen gouvernement maa ngi ñaan yàlla daal na wut boo xam ne dana arrange Sénégalais yi. te nag bépp ministre bu ñu nommé boo sañoon résultat ngay def waaye boo amul loo liggéeyee bu fekkee àll amul ci réew mi doo mun liggéey liggéey fa ñi nga xalaat liggéey bari nañu lool Morola gama dëkk bëgg nañu ku leen liggéeyal boo demee kees wax noppi. dëkk boo dem te région boo dem te bëgg nañ ku leen liggéeyal. waaye nag moyen bu amul dara dara du sotti. jërëjëf musa Ciss ca Morolan ñu daal di jël keneen bi biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa euh, euh, euh, sëñ bi ñoo ngi lay ziare waay. delloo ziar. waaw ñu ngi ñi nga bokk liggéey bi yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam ak xéewal ah. di ko ñaanal waa Sénégal mbokk li may njëkk wax mooy affaire comme li mbokk moomu génn sànq wax nañ bàyyi seen wax yu ñaaw yi ñuy wax président Macky Sall lu mu lu mu def ànduma ak moom lépp lu muy doxal du ma affaire waaye nag lu bu dee alal ak wax rek président Macky Sall foo ko toll ñu wax nañ ko ja nañ leen jàppandal nañ leen yombalal lay dégg muy wax te itam alal ji mu mës a dugal ci pour dimbale doomu doomu Sénégal pour mu réussir pour mu am lu mu jàpp benn président mësu ko fee def fekkee ne loolu euh, maanaam na mu ko bëggee woon demeewu kon ñi ñuy jox ñuy séddale wala ñoom seen bopp ñoo waaye moom ci wàllu bopp nga xam ne joxe ndigal ak ak génne xaalis moom la def na ko amul benn li mu fi def benn président mësu ko mësu ko fee defagum ok am na yu bëri yoo xam na war na ko jubbanti ànd naa ci loolu. mais nag dañ bàyyi lu lu lu lu ku sa danaa feebar sax nga ne Macky Sall xale yi di dem di géej ci géej gi nañu bàyyi président Macky Sall mi naan moo moo ko def deful dara dëgg la moo fi jigee woon ay kii waaye wax politicien jarul du ma sa doom képp ku wax fii ci affaire politique di xëccoo réew mi yaa ngi digge loo xam ne lay leer ne lii yaa ngi koy wax waaye te sax jiitaloo ci sax su ma yàlla mayee li ma gënal bëgg na am naa yéene duñ ko waxee noonu duñ waxee noonu parce que nañuy waxee moo baaxul amul kenn koo xam ne kii la nga diggee ci kii da ko def boo boo toogee amul amul bu fekkee dañu ne président Macky Sall baax kan moo baax nañ wax ñoom kan moo baax kan moo baax mbas mii liñ ci def docteur yi jàmbaar nañ leen yërëm di laahi war a sol bàyyi ndaje yi ndax ñoom it dañoo am ya dañu bëgg a delluwaat ci seen njaboot toog am jàmm féex waaw sonn nañ alal ji ñuy dugal ci mbas mi affaire yooyu am na feneen fu mu xaj xaj na ci hôpital xaj na ci tali xaj na ci leneen ak leneen kon nag dañ leen war a sant gërëm leen président bi it li mu ci dugal ci alal bëri na mi ngi def effort yu bëri bari bu réussir wut ci dem am na yéene te yéene moo ëpp solo yéene dañuy fay yéene yéene dañ ko fay waaye buñ taxawee naan buñ ko gërëm ak sa docteur yi kenn du jooju wax ju ak ak xale bu dee ci géej gi ñu ah, jëñ ko ko loolu du dëgg du yoon nañu xam li ñuy wax nañuy nañu nañuy nañuy politique politicien bi tey xool seen digganteeg yàlla nag di ko ci xalaatal. ko mm-hmm. doxalin wi lépp baaxul. am na yoo xam ne dama waaye kon mu jël ci gouvernement bi na loxoom set te jub jubal. jërëjëf mbokk moom may wootee ca biti réew ñu daal di jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum waaw. ñu si waay man waaye li may wax daal ñun ñëpp daal sénégalais moo ñu ñor suñu màggee Sénégal moo ñu meññ nañu ñaan yàlla Sénégal avancé parce que yaakaar naa avancé wul ñun lépp du suñu rendement kon boog ki ko jiitee ku ko jiitewul nañu ñaan yàlla li gën ci Sénégal parce Sénégal moo tax ñu nekk li ñu doon. waaw leneen li mooy état bi li ma koy ñaax na xool félicitation ci feebar bi yéen Sud FM bépp fii di jàngoro bi amee ay wax sa xalaat ay solution yi ñu ngi ci ñu ngi koy joxe ñoom ñu ngi koy jëfee. yéen moom war nañ leen jox médaille si feebar bi yàlla ñu jàppee ba mu génn ci ak lii di jàngalekat yi ak lii di médecins yi nit ñi da leen di encouragé trois yi moom état bi war na fexee lan prof yi mu leen di jox mu fekkoon leen seen taxawaay ci mbas mi leneen li mooy biraam état bi na xool di muy programme jeunes yi ni ñuy mbëkkee dafa am liggéey yoo xamante ni il faut mu taxaw ci lii di four yi fuur yi nañu xool nuñ ko alimenter ci commune yi teg ko ci ay conditions leer mën na embauché lu mu dee dee cinq jeunes der yi ñuy rey ay naka yi ci ay ngénte ki yooyu na xool usine boo xamante ni dina employé jeunes yi ci der yi mën lañ gël mu nekk liggéey boo xamante ni bu mucc jëmale lay doon na xool ay secteurs yoo xamante ni su ci taxawee dina mën a tendre xale yi ñu bañ di génn di li ma wax toujours ñu am seen xaalis bi Sénégal di dawal seen i oto yombal la leen ay crédit yoo xamante ni tant que xale yi dund ñu ñun ñi nekk moodu moodu li ma wax dajale ci deux millions ñëw Sénégal dëkk ci koñ doo kii nga nekk ci àll bi doo fi toll cher nga dajale ko ñëw Sénégal di fatt booy di toll di takk ay moto di leen tuut ci yoo xamante ni du yoon te yow dund boobu dundoo ko fii nga nekk en immigré ñun ñëpp ñu ngi ci àll bi xam nañ réalité bi fi nekk soo ko see bopp yeewu takk sa dàll soo ko summi loolu da ngay tëdd ci xale yi nañ leen wax li fi nekk lañu fexe xale yi di dund moom la ñuy dund Sénégal dund boo xamante ni mais il faut ñu yombalal leen ko def ay usine politiciens yi koo gis ñu waxee ay politiciens yi déposé nekk candidat lañu xool ñuy def suñu njiit réew mi fii ma nekk ko Chicago mu ngi fay étage boo xamante ni oto lim ci amoon si ay nit kenn xamul nu mu toll nañu dimbale ngir yàlla yoon tamit bi Macky Sall rek mooy avancé Sénégal ku ci nekk dërëm bi nga jërëjëf Gassama woote ca États-Unis Chicago ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi. El Hadj Birama. waaw Adama. Adama Dieng la waaw maa ngi lay nuyu baax di la ziar. delloo ziar yokkal kàddu. di ko sàkku ci yow di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. di nuyu sa technicien kam ku fa ne tey. Alassane Wade. allo Birama. Alassane Wade. ah Alassane waaw maa ngi koy ziare bu baax. waaw yokkal kàddu bi. waaw. mu uh-huh, yokk baat bi. Mm-hmm. Birama mbirum uh, gouvernement bees bi ci la bokk ah? ci la bokk waaw. waaw wax dëgg yàlla uh, loolu de lu am solo ndax président moom moom la Sénégal jox pouvoir mu mën a fal ku ko neex mën a tamit folli ku ko neex ñu ngi ñaan rek équipe bu bees bi nga xamante moom la am yaakaar ba di ko teg mu nekk équipe boo xamante ni. li mu ci yaakaaroon lépp dañ ko dina ko ndax kenn ku ne xam na ni moom réew mi moom kenn ku ne boo ñëwee da ngay def rek su sa morom yam bu kenn dikkee mën a tàmbali ñun waa Kajoor nag wax dëgg yàlla ñu ngi wax bu baax a baax mu bàyyi ñu xel ndax it ay poste de responsable depuis président Fallou ba nëgëni 2012 benn ministère plein bu man a wax bu bëgg Kajoor moom gisaguñ kon ñu ngi ñaan wax dëgg yàlla mel ni la Moustapha maire bi Moustapha Sylla l' expert comptable boobu Moussa maire yu ñaaxee ñu dugal ko ci gouvernement bi bu loolu mbënn meeg mbirum euh, euh, dem ci immigration clandestine bi man maa ngi koy ñaaru te di wax bépp jeune boo xamante ni yaa ngi dégg sama kàddu rawat na nga di ab kayor kayor wala foo mën a nekk bu la kenn dugal ci loolu ndax it jàpp naa ne réew mi kenn mënul wax ni réew mi neex na waaye nag ku fi nekk te góorgóorlu di nga am dara ndax biraama boo jëlee exemple liggéeyu sawaan yi nga xamante ñoo fi nekk yëpp étranger yi ñoo koy def pourtant ñooñu ko doon def doon di di dagg ay wex tey jii yëpp ñoom ñoo ko yore te ci loolu dong lañ ko kon nañu góorgóorlu bu baax a baax fonk suñu réew mi te xam ni réew mi ñun dong ñoo ko maa defar état bi lépp lu mu man pour participer ci développement réew mi na ko def man nag fi ma koy gën a interpeller directement mooy ci wàllu mbay mi agriculture rek Sénégal mën a soqaliku pour mën a téye ay ndawam ci la mën a soqaliku tamit pour mën a gën a gaaw a participer ci développement réew mi kon ferme agricole yi nga xamante ni président mi ngi koy def na k yaatal surtout maa ci Kajoor am na ndox mu neex nañu dimbali yokkal ñu forage nekk foofu jërëjëf Euh, Touba ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi noo tudd ak fooy woote. Birama Maram Faye la lañ may wooye. Colobane waaw. waaw euh, xanaa di nuyu auditeurs yu Sud FM yëpp. ñëpp a ngi lay fay nuyu itam waa Colobane ak waa Ndengler yëpp. Mhm. Birama. waaw Maram. Birama Macky mooy premier responsable ci dee yi nga xam ne moom la suñu njaboot yi di dee ci géej mooy premier responsable ko jiñ kenn parce laaj réew mi ne mën naa dige fi emploi yu dul jeex suñu doom yi dañ ciy dégg ay étudiants ay étudiants yu jàng am bac dañ ci dégg ay footballeur nga xam ne football bi moom dee na fii Sénégal yaa ñu yàqu na dañ ciy dégg ay pêcheurs yoo xam ne amatuñu lu ñu napp ci géej gi loolu yëpp duñ ko jiñ kenn ku dul Macky Sall parce que am réew ni mu ko bëgg a yore moom kenn du ko euh, yore noonu parce que maa ngi dégg sax muy def ay remaniement yu mag xamul yooyu yëpp moom la concerné rek parce que xam na am na ñu mu joxoon ba ñu lekk ba rek ñu bëgg a indi ñeneen ñu lekkaat encore di di di pàccoo alul réew mi te kenn kenn dinañ koy wax nag parce que euh, ñun ba mu taxawee di di di di laaj euh, réew mi ñun waxoon nañ ci li doon wax ay weeri ñu nit ñu wax du leen ko jox réew mi du leen ko jox parce que mënul mënul bawul te lu yàqu moom la moom réew jàpp na ne ay mbokkam ay doomam ay njabootam loolu kese la du noonu parce que réew buñ la ko dénkee da ngay da ngay dellu sa xel ngay dimbali maanaam population bi ñi nga xam ne seen loxo jëru seen ginnaaw nga dimbali leen damay dégg sax euh, ñuy wax ni leen ñuy dem ay góor lañu kuy képp kuy dugg ci rey bi nga xam ne ñooñu dañuy xaru waxoo dëgg ñoom xaruwuñu reyuñu seen bopp ay góor piir lañu ay ay liggéeykat lañu dañuy liggéey dajale seen i trois cent mille quatre cent mille pour bëgg a teral seen bopp bëgg a teral seen bopp loolu dong moo leen yóbbu ci géej gi mais amul kenn kuy dugg ci géej gi tëpp ne da dem di xaru ji amul loolu amul tey amul ëllëg nañu rafetal te di wax dëgg loolu képp ku sa mbokk demoon doo dugg ci ray bi nga xam ne ay bandi la ay nangam nangam ñooñu du ñu ay bandi ay gor yu set wecc wecc wecc dañoo dem ba maanaam euh, Sénégal seen yaakaar dafa tas ci Macky Sall xamatuñu lan la ñuy def ñu dem di dugg ci am ndox loolu kese la Macky Sall moo war a dellu xel boo mun bu la joxeem réew boo mun euh, Maram Faye Colobane ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 allo asalaamaaleykum maaleykum salaam monsieur Birima Diop na nga def. Diop sant ba baax alhamdulilah. di la nuyu di nuyu waa group bi. ñëpp ngi lay fay Diop. mais Mr Birima. waaw. man de xaaruma dara ci gouvernement Macky Sall bi. waaw ah, lu tax. toujours gouvernement Baara yëngoo rek. parce que mi ngi mi ngi ci dina dynamique yu njuut njaaj yi mu nekkoon ba léegi. bëgg a def euh, forfait boobu ci calcul politique yi mu nekkee muy deux mille vingt quatre moo tax il faut mu dugal ñoo xamante ne pour mën a def son forfait am na ñoo xam ne wàcc woon nañ leen ca mille dina leen jéem dugalaat parce que suñu peut-être première alternance mille échec la avec Ablaye Wade suñu deuxième alternance ak yaakaar yi ñu amoon ci moom ba indi dee ci échec la xam nga li gën a bon ci réew ñu fal la nga nekk ci politique politicienne di calcul noo amee seconde mandat de noo noo amee deuxième mandat mais loolu moo doon yoon bu ñu la falee dangay liggéey te yàlla tax soo liggéeyee am résultat bo bu sa dem jotee nga dem keneen ñëw continuer mais di calcul calcul euh, euh, deuxième mandat te dama te liggéeyoo ko loolu moo ñu attardel ba léegi moo tax mënatul def dara loo xamante ne tey dina jëmale réew kanam échec na ba pare li ñu koy ñaan mooy deux 2024 mu abal ñu ñu sànn ñu tànn ki nga xamante ne am nañ yaakaar ñoom ñu teg ko ci maanaam nag li jëm ci xale yi nga xamante ne ñooy génn di di rey seen bopp ci géej gi man de santuma leen loolu li ma leen di santa mooy ñu toog taxaw xeex seen réew tegu ci yoon comme ni que Abdou Karim ngay waxee parce que réew mi mënuñu seetaan Macky Sall ak ay euh, waa coalition ak ay mbokkam ñuy saax-saaxee suñu alal xale yi jël kër gi di dee nañu toog xeex système bi parce que système lobby bi moo ñu rey am nañu ay ressources naturelles te ñoom xale yi ay richesse lañu te l'abri te l'abri de du monde c'est l'Afrique nañu toog xeex ci système bi ñu jógee fii suñu réew mi tegu ci yoon bu ko defee ressources naturelles yi ñu yàlla may ñoom xale ñu jariñoo ko mais Macky Sall mii njuut ndaaj na suñu alal joxe ay contrat yoo xam ne maga frère am lekk na ci suñu alal ak ay mbokkam ak waa këram système boobu lañ war a xeex mu jógee fi ñu toog ci réew mi moo gën ñu jaay seen bakkan. jërëjëf Diop ca Italie yi ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Diop El Hadj Ibrahima. waaw. ndongole Cheikh Diop yëpp moo lay nuyu. ñoo ngi lay ziar Diop. di nuyu di nuyu ci technicien. moo ngi lay fay. di nuyu mboolem groupe wax sa xalaat rek di wax ci gàmm gi nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahiim jeexal koog alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. yàlla yokk jàmm ji ci biir Sénégal jàmm ngi fi. ndax tey maanaam ci avilu remaniement gouvernement bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy def man yaakaar naa ne président Macky Sall bu demee bay remaniement rek yaakaar naa ne la tax mu di ko def man yaakaar naa ne ci bëgg saw askan ay toog fi ay at maanaam saa si gouvernement bàyyi ñuy liggéey man yaakaar naa te cooli nag cooli cooli cooli nag ñi coow moom mënuñoo bañ coow ndax naka jëkk démb lañu doon coow barke démb lañu coow ndax bu fekkee tey jii nit ñi ñi ngi fépp ñu ngi toujours di am règlement de compte yi ñu am ci eh, farfarloo bi ci ci ci parti ndax tey ji soo àndee kee boo àndut ak moom tey ji bu la bàyyee bu la joxul dara maanaam nga wut ab règlement de compte ci moom li fi mi ngi gis nga président Abdoulaye Wade toll jamono yoo xam ne nii Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade daan def Abdou jamono yoo xam ne nii day woo président Abdoulaye Wade woo opposant bi ñu ànd liggéey gouvernement bi tey ji président Macky su ko defee tey ji daa bëgg réew mi gën a jëm ca kanam tey xam nga nit ñi dafa am ñoo xam ne nii maa ngi ñoom ñoom bëgguñu jàmm dara ci réew mi xam nga bu fekkee ne yow da ngaa nekk fa nga nekk toog fa nga toog bu la neexee Sénégal maanaam bu fekkee ne tey ji da nga fi woote aw musiba ay ay ak nangam ak nangam ndax xam nga tey jii rek président ji ñu wax rek président ji képp koo xam ne nii mën nañ laa ubbil nga waat na président boo xam ne nii liggéeyu ko ndax ma dañ ko a wala duñ a wax xam nga li ñu wax mooy maanaam jafe-jafe réew bu ba nga xam ne réew ma dana dox kanam ndax loolu mooy solution ndax tey jii ñi fi nekk dama leen daan wax na leen tey jii ñi fi nekk ñëpp di laaj réew mi tey jii ay cadre lañ kon tey jii ñoom ñëpp tey bu ñu demee ba xam ne kenn ku nekk yaakaar nga ne war ngaa war a mën a mi su la njiital mi yooyu ne la kaay nu ànd liggéey war ngaa war a mën a dem bu politique jotee nga dem politique yi par exemple laa noonu la def ko Diouf nga nit ñi bëgguñu jàmm ndax ku ne ñuy dem ne ñu ne dañ laa jënd wala daa bëgg a jaxase parti yi daa bëgg a def nangam ak nangam déedéet day Sénégal tollu jamono yoo ne fi toll tey ñu ngi ci ñu ngi jërëjëf Cheikh Diop Yabatel Diop ñu daal di jël keneen ci ligne bi ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum allo. Birama Ndiaye. waaw. Birama naa def. yaa may dégg. maa ngi lay dégg yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu Alassane. Mhm. ak waa Sud FM ak Socé. ñëpp ngi lay fay. Birama coow day gën a bëri ndax. gis naa ci réseaux sociaux yi ñu def ni Macky Sall am na ñu mu dàq ci gouvernement bi mais nag am na ñu mu pare ci waa opposition bi ñoo xamante ni dana leen dugal ci gouvernement bi muy waajee indiwaat. xanaa Karim ci la bokk. te ah. man de xanaa Karim ci la bokk. ah non ministre d'État bokk ci. Hmm. mais am na ñeneen ñu ci bokk coow li dana gën a bëri. Hmm. te na seet ñi koy yàqal jurul muy complexe di leen jëlaat. parce que xale yi di jël géej gi di dem licence yi nga xamante ni depuis régime socialiste chaque jour bu ñu jëlee benn socialiste jox ko boobu boobu ministère il faut mu def ay problèmes yoo xamante ne Sénégalais yëpp dañ ciy gis seen bopp muy coono licence yi nga xamante ne ndooy joxe na ko ba tax na chinois yi di ñëw di napp jën yi bay napp jën yi ndaw yi loolu moo tax xale yi gisatuñu benn jën bu ñu napp ci géej gi ba waral tey ñuy jël gaal yi di dem bitim réew di daani seen doole ndax bitim réew boo fa demee da ngay liggéey da ngay am xaalis da ngay dimbali sa bopp dimbali say yaay say maam ak ñeneen ak ñeneen doo am jot di dem ci ministère yi di ñaan ay xaalis ak a tagg ay nit ak di jël audio yi di leen ko transfert naa ko xool li ma la doon wax ci rajo bi yooyu doo am boobu jot kon bu ma doon mooma daal ñooñu moom bu mu ci jëlaat kenn képp ku bokkoon ci socialiste nekk transhumant ñëw APR ni dangay ngay liggéeyal euh, Sénégal liggéeyaloo Sénégal sa bopp ngay liggéeyal na leen fi Macky Sall bàyyi seet ñi ko doon yàqal bu mu leen jëlaat te bu mu jël ay ministère yu bari na jël tuuti ministère taxaw leen ñu liggéey Sénégal képp koo xamante ne jour nga nga nekk ci jërëjëf maar woote ca Amérique ñu daal di ko jëfal jël keneen ligne bi asalaamaaleykum. Aji Birama. aha kooku. yàlla ñu xaawee géej la. waxal ñu ginnaaw ne yaa mujj. kon gars yi tekki leen maa mujj. aja euh, maa ngi lay ziar di ziar waa yëpp. ñëpp a ngi lay fay. di nuyu waa daaru Gueye ngeen làkk sa jub si mbirum xale yi de xam naa ni phénomène bi yàgg na fi depuis deux mille et quelque ba léegi ñu ngi fi mais nag période bi lañ koy def parce que temps bi géej gi day tàng comme ni ko mool yi waxee sedd bi am ci géej gi géej gi day xaw a tàng mooy waral ñoom ñuy euh, songu géej gi. waaye nag xam naa responsabilité ñëpp daal ci lañ bokk waaye opposition bi yor seen i milliards boo élection jotee ñu génne seen oto. di jox nit ñi seen i xaalis di amuñu fi suñu pousse amuñu fi bu mu ndox amuñu projet de société amuñu projet de social ci li dal li dal xale yi ci lañ bokk de état bi nag war nag war état moom du jox nit ñi liggéey mais day créer ay ay ay ay suñu fi nekk te loolu war na def na président na ko institution financier yi nañ li industrie agroalimentaire yëpp yokku nañ loolu moom ci régime ku nekk mën nga koo xool gis ko kon moom mi ngi def li ko war waaye ñeer i alal war nañoo dimbali xale yi wut ay usine jox koy nit ñu mën cee liggéey kon boobaa li lii na wàññiku bi may daaneel ak mooy góor waaye ñuy teg man de bëgg naa kajoor gee ñu juddoo mu jël fa ñaari nit muy góor ak jigéen say ne bëggay ture ak bég gay su leen jëloon duñ ko wor dinañ ko liggéeyal te ay jàmbaar lañ te ñooñu lu ñu am ñu ngi koy defal président Macky Sall ak dimbali si lañ dëkk wasalaam jërëjëf Alaaji Xaaya Gey ci moom la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alassane Wade mi féete ci xarala gi xanaa xibaar yi li ci gën a nekk waxtu bi def ñoo dàpp ñu aha ñu jël kon nee na ñu jël keneen ci liñ mu am na ku egg si ñu daal di ko jël ci 88 lay doon 628 98 98 salaamaaleykum. kon mbokk yi ñu daal di leen a jaajëfal sant leen gërëm leen gërëm bu baax Alassane Wade mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu 22h jotee kii di xaddi seen ñëw yéen ci xibaar yi ci yàttal lu gënoon a fës ci xibaar yi nag bokk na ci remaniement di gouvernement bu bees ba nga xamante ne ñoo ngi koy xaarandi fii ak ay fan bi fi nekk nag daal di nañ ko wàccee déglu ngeen ci kaddu yi nga xamante ne jot na ci rot ak édition spéciale bi ngeen ci àndoon ak Baye Oumar Gueye ci kanam tuuti xaddi seen wuutuñu ci togg gi ñu leen di jaajëfal di leen ñaanal panaanub jàmm Birama Ndiaye Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée